asalaamaaleykum sunu mbokk internet yu TMS TV ñoo ngi leen di dalal ak jàmm ci seen seen bi nga xamante ne moo feeñal li nëbb di laa TMS TV ñu ñëw nag seen émission bi ngeen xam ne moom ngeen taaw mu leen yee ci li nga xamante ne mooy wàllum àdduna ak li nga xamante ne moo nekk xew-xewu jamono tey jii nag ñu nekk ci weeru décembre te ku wax décembre wax feet yeeg yi nga xamante ne moo ci am ay xew-xew yoo xamante ne yu am solo la. plateau bi nag saa su ne dina ci ànd ak kenn ci waa kër gi tey nag ma ànd see ki nga xamante ne mooy sama rakk si kër gi ay Aïdara Chérif ma jox ko rek mu nuyoo après ma jàll si li nga xamante ne moom lañ bëgg a waxtaanee tey Sarata. waaw soxna bu baax maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar. di la ziar bu baax di la baalu àkk bu baax. Mm. ah naka sa weekend. ah sama weekend mu ngi nii rek xanaa coono. Mm. waaye ñoo ànd daal. Ah, ñoo ànd moog àdduna ànd ah, mm. neex na waaye. kanam gi de leer na nag xaw ma nag. Ah, xanaa di la toppandoo rek. waaw <laughs> ah, macha allah ni ngay toppandoo yi moom baax na <laughs> bëgg naa loolu. waaw ma jox la rek nga nuyoo saafonte ak ñi nga xamante ne ñooy waa mbokki internet yi ñu jàll rek kon ñu leen koy defal saa su ne ci waxtaan wi. Mm-hmm, mm-hmm. waaw soxna Mati maa ngi lay jaajëfal di la mm-hmm. jox sa wàccuwaay. ni mu gën a kawe rek euh, jox wàccuwaay ki nga xamante ni bi rek moo nekk kilifa kër gi. mu nekk Thierno Moule Sow nekk the nañ ko li médecin traditionnel du monde mm-hmm. waaye itam duñu fàtte nag suñu mbokki internet yi suñu mm-hmm. xarit yi ñi nga xamante ni saa su ne ñoo ñuy may doole doole ngir ñu gën a euh, indi ay jéego ay ay ay ay li nga xamante ni ay coppite la mm-hmm. euh, ci wàllum liggéey bi euh, ci wàllum chaine bi itam waaye nag duma fàtte sama mbokk sama naataango yi suñu doyen yi ñoom Moustapha Fall ñoom ñoom Kara ñoom euh, kii euh, Saliou Saliou sàmm ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ak équipe bu euh, Kara 221 caméraman yi ñu ngi leen di ziar jox leen seen wàccuwaay nu ma gën a kawee rek. Mm-hmm. waaye soxna Mati xam naa ne moom tey thème bi ngay indi dina am solo bu baax a baax. Mm-hmm. dinaa la bàyyi rek ba ci kanam tuuti ngay indal ñu tey lan lañ war a aborder tey. Oh, waaw Euh, kon dégg ngeen sama rakk ji ni mu nuyoowee macha allah ñu jël nuyoo bi rek teg sa teg ko ci loxo ki nga xamante ne mooy borom kër gi di ceex Thierno Moule Sow di ko jox wàcc waaye bu baax a baax. di ko di ko jaajëfal dafa xaw a jàpp a sonn rek damaa xaw a mm-hmm, sonn nag. Mm-hmm. nga rek ñun moom dañoo bari bagage nekkoon ci xew yeeg yaa ma mm-hmm, gën a xam. ak kóllëre. loolu daal moom baat bi moom tey xaw naa sonn mais na ma mbokki internet di jéggale xam ne liggéey bee ko laaj. te ñoom ñooy laaj saa ne ñu ñëw ci émission petit matin looloo tax mais maa ngi jéggalu bu baax ci baat bi xaw a sonn rek mhm. waaye ñi ngi ziyaar di jox wàcc waaye ki nga xamante ne mooy boroom kër gi di Thierno Moulay Sow di ko jaajëfal sa sune ci kóolute gi nga xamante ne am nañ ko ak bagage yi nga xamante ne jox nañu ko pour ñu koy liggéey di ñu jox alalam macha allah pour ñu ci liggéey mu nekk loo xamante ne lu am solo la bu ñu ñaari Thierno Moulay Sow amoon ci réew mi rek defe naa ni chômage léegi mu nekk loo xamante ne kenn dootu ko déggati saarata mhm. waa euh, soxna Mati euh, dañ may rappeler rek euh, thème bi lan en fait. Ah, thème bi tey nag ma bëgg a waxtaanee li nga xamante ne moom mooy mois de décembre bi. ku wax mhm. mois de décembre wax fin d' année. fin d' nag tey ren nag mu nekk kaabu bu ndax dafa am mbas moo xamante ne daf fee dugg. Mhm. mu dajeeg li nga xamante ne mooy feetu decembre te mhm. feetu décembre bi nag dañuy daan gis parents yi dañ daan jëndal xale yi ay cadeau jigéen ñi tamit seen i jëkkër di leen jëndali cadeau. ku nekk rek ki nga xamante ne yow leer na ne da koo war a bëggal nga bëgg ko see bëgg ren nag mu am nekk ci contexte boo xamante ne dafa metti waaw pandémie ma bëggoon rek nga ñaax sénégalais yi ñaax xale yi ñaax sa suñu moroomu jigéen ñi ñu dawal tuuti yërmande ndax ren moom dafa am crise économique boo xam ne am na fi bu particulier mhm. waa soxna Mati euh, thème boobu nag macha allah euh, ndaxte fête de noyel lañ nekk buñ ko déggee mooy feetu chrétien yi mm. te feetu chrétien yi euh, boo gisee boo gisee fin ci fin d'année bi boo gisee ñu koy fête itam dañu ne ki nga xamante nii rek moo nekk Jésus Christ jour boobu la ganu si la la la ganu si ci àdduna mm-hmm. euh, loolu nekk na ci euh, chrétiens yi même ñun musulmans yi parce que ay mbokk lañu daanaka euh, parce que ñun ñëpp benn lañu mm-hmm. te xam nañ ni Sénégal itam nekk na réew mi nga xamante ni kii la en fait réew bi nga xamante ni dafa bëri ay kii dafa bëri ay ay ñi nga xamante ni ay ay ñii ay musulman lañu ñii ay chrétien lañu ñeneen ak ñeneen yi dañoo bëri en rafet donc nag loolu nekk na li nga xamante ni ñun tamit dañ koy rafetlu itam dañ leen ci jàppale parce que bu dee euh, ñun tamit musulman yi bu dee suñu bës la tamit euh, da ngay gis itam ñoom tamit ñu ngi ñuy jàppale donc nag euh, c'est partagé donc nag soxna Mati comme ni nga ko waxee rek ni sama mbokk jigéen yi suñu mbokk jigéen yi des fois dañuy indi bu fête amee rek da ngay gis ñu commencé indi problème mm-hmm. voilà ñu commencé indi yenn jiixi jaaxa yi te loolu nag kenn du ko rafetlu mhm. waaye nag soxna Mati euh, lenn nag euh, naroon naa ko dooree parce que euh, naroon nañ naroon nañ kii ni Euh, rendre hommage ki nga xamante ni mooy soxna Seyda Mariama voilà lu am solo la parce que mm. naroon naa ko tudd ca njëlbeen ba waaye nag xam nga xel matul mm, man euh, maa ngi doon wax moom laay voilà mm-hmm. noonu la parce que xel moom ay day fatu mm-hmm. donc nag euh, duñ ko fàtte dañ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla xare aljana mm-hmm. ndaxte jigéen la jigéen bi nga xamante ni macha allah jigéen ju mën góor la grande dame la comme ni ko référence la comme ni ko maam ay eh, papam bi di wax parce que bu muy ñëw ci bu ñu xoolee côté historique bu ñu xoolee balaa muy ganu si ci àdduna mhm. euh, gis nañ ni benn ay ay yenn miracle ci li nga xamante ni ci la baayam wax mhm. moom Cheikh al Islam Baye Niass macha allah am na li nga xamante ni eh, bi balaa muy ganu si ci àdduna waxoon na ko parce neewoon neewoon na ni Euh, ki nga xamante ni mooy soxna euh, Mariama Seyda Seyda Seyda Mariama moom balaa muy ñëw dafa gisoon euh, li nga xamante ni moom la nar a indaale ci àdduna donc nag newoon na ni sax kooku góor la parce que dafa gis li nga xamante ni ay kiimaan ci soxna Zeyda ba nga xamante ni newoon na ni góor la bi mu bi mu ñëwee ci àdduna nag lañ ko ne nee nañ du góor jigéen la mais moom Cheikhal Islam di Baye Niass moom waxoon na ni même bu dee jigéen la donc du yore jikkoy jigéen du yor du def ay jëfinu jigéen donc nag ñu xam ne ni kii am na li ko yàlla may ndax taxawal na lislaam taxawal na réew mi ba nga xamante ni muy jàngal ay di sol nit ñi ci wàllum jàngu alxuraan di leen xamal lan mooy diine lan la yàlla wax ak yonent bi donc loolu nekk na fierté ci ñun jigéen ñi donc nar nañ roy euh, ki nga xamante ni moo nekk soxna Zayda euh, Zayda Mariama donc nag nekk na fierté nekk na ñun sénégalais yi ñun doom réew mi ñun particulièrement ñun jigéen ñi doon na suñu fierté ndaxte macha allah yàlla may na ko euh, taxawal na lislaam taxawal na diine gi macha allah dañ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla xare aljana ba nga xamante ni waaye nag xam naa suñu mbokk yi gars yaa ngi ci sur terrain ñu ngi nar a dem. jëm ci Kaolack euh, dara du mm. euh, dañ ko war a inhumer tey incha allahu euh, ci 16h waxoon fag naa gars yi ñoo ngi ci ci yoon bi di dem foofu parce que biig ci guddi démb ci guddi lañ ko daal di lever la nekkoon lever du corps bi donc voilà ñu yóbbu ko ca ca ca ca kii ca Kaolack incha allah donc foofu lañ koy suule donc soxna Mati loolu nekkoon benn briefing rek pour mën wax ci ma waa soxna su baax soosu suñ ko tuddee mhm. foog ñu wax ci mhm. buñ ci waxul rek day nekk loo xamante mhm. ne suñu fóot la parce que koo xamante ne jël na ay jigéen def leen ay xaafisul xuraan jël ay góor def leen ay xaafisul xuraan dénk boppam yàlla avant muy dem wàcceel kaamil ñetti kaamil ba ñetti ndongo la woo ñu wàcceel ko kaamil macha avant muy dog kon ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla kooku duma sori si moom dañuy ñaan yàlla rek yàlla taas ñu si barkeem ndax soxna su baax la woon référence la taxawoo ñu jàll ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi waaw soxna yi dañuy delluwaat rek fi nga xamante ni euh, moo nekk thème bi euh, tey ñu nar a waxtaanee li nga xamante ni moo nekk fetu Noël bi mm. fetu Noël bi nag euh, nit ñi ci contexte particulier la lañ koy fete parce que gis nañ ni pandémie bi lëmbee na jamono gi lëmbee na adduna bi instant bi kenn xelam dalatul ndaxte ki nga xamante ni muy jiitu réew daanaka dafa jël ay dog ndogal ngir rek rek euh, tënk nit ñi ndaxte daf buggul euh, feebar mu gën a ba tax ni mu am benn limite bi nga xamante ni def na ko pour nit ñi bañ a dajoo euh, mën a éviter li nga xamante ni mooy tàncaloo beeg ndajoo bi parce que ndaje fu muy am rek wala su fekkee dañuy organiser benn mais événement comme artistes yi ay ay soirée ay concert du genre donc loolu day indiwaat beneen bi nga xamante comme deuxième vague bi donc nag crainte bu ñuy am pour deuxième vague bi mun ko mu gën a yokk maanaam euh, ci côté feebar bi nit ñi gën a atteindre ci feebar bi donc dina ko gën a yokk te loolu loolu nguur gi di éviter ba tax ni rek mu tënk ñu ngir ñu gën a ñu bàyyi xel li nga xamante ni moo nekk pandémie bi euh, donc nag loolu nekk na li nga xamante ni euh, benn instant dañ koy rafetlu parce que li nga xamante ni day gaañ askan wi day gaañ réew mi donc nag dañ koy war a évité donc nag ñu tamit dañu waroon doon manko doon benn Euh, mën a éviter loolu parce que suñu njëriñ la euh, suñu wérgu yaram la ndaxte mm-hmm. ku la ne sangul da taar la ba donc nag loolu ñun ñoo ci war a jiitu sax en fait ñun waruñu xaar sax président mi duñuy ne def leen nii def leen la wala limité leen nii wala limité leen la donc nag loolu nekk li nga xam ne dañ koy rafetlu waaye nag bu ñu xoolee itam Euh, dañuy référé wu euh, dañuy daal di dem ci kër yi euh, sama mbokk jigéen yi suñu mbokk jigéen yi ñi nga xamante ni at bu nekk seen seen jëkkër yi dañ leen doon indal ay cadeau mm. ah indal seen doom yi ay cadeau ah bu guddi jotee comme 24 wala 31 fin d'année bi bu ñëwee da gis ñuy génnal ak seen i njaboot dem déambuler ah en fait dem ci yenn lieux yi nga xamante ni dañ fi am rencontre taal fa ay ay bu ay ay donc nag loolu yëpp euh, dañ dafa dafa daal di wàññeeku dañ ko daal di éviter parce que pandémie yu bee tax ak économiquement koom-koom bi dafa daal di wàññeeku parce que boo demee ba sa ba sa ba njaboot ba sa jëkkër ah, en fait li mu doon euh, fête bu jotee li mu la doon jëndal du la ko jëndal du la xottil yére du la la du la du la indil ay cadeau ah wala indi cadeau pour say doom loolu bu amatul nga xam ne ne koom-koom bee wàññeeku donc dañu war a comprendre góor ñi ci côté boobu ni xam ne ne économiquement dafa am problème réew mi dafa am problème économiquement donc nag loolu dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax euh, ñu jëlee ci maanaam euh, ñu am benn compréhension. Euh, degré de compréhension ci suñu jëkkër yi mm-hmm. donc loolu nekk na li nga xamante ni macha allah voilà loolu la amoon soxna Mati lu may wax mu bàyyi la ba ci kanam. rek ñuy wax tamit xale yi nga xamante ne ñoom tamit seen parents yi dañ leen daan satisfait si côté boobu ñoom tamit ñu xam ni papa bañul yaay bañul affaire yi rek moyens yi ak crise économique bi nga xamante ne Sénégal da ko am fa fi nekk mm-hmm. nii nit ñi lu ñu lekk sax problème la euh, fi nekk nii ñu bëri fayeeku ne le 25 26 fay nañ ndax dañ naan feet yee tax mhm. buñ la fayee am na ci ñoo xamante ne fi mu nekk nii buñ duggee mois de bëri mois de buñ duggee mois de janvier presque seen salaire jeex na nga bëgg a mhm. xaaraat tamit ba weer boobu deewaat fekk yaa ngi endetté nga bëgg koo fay ah, est que jotul tamit ñu am benn organisation boo xamante ne dañuy roy ci ñi nga xamante ne ñooy tubaab yi parce que tubaab donc bëggul lu baax xam nga yenn saa yi lan mooy manqué sénégalais yi dañ dul prévoir mhm. comme ça denc benn denc wala nga su affaire bi cóolee nga dem jël loolu ñun dañ ko dafa nekkul suñu culture ba nga mhm. xamante ne yenn saay bu problème pandémie bi rek war nañoo yee mhm. war na yee sénégalais ñu xam ni denc dafa baax nga xam ne soo ñu bàyyi tamit gaspillage bi dañu gis ay xew yu inutile ay xew yoo xamante ne teguwul fii teguwul si farata teguwul si sunna léegi loo lekk sax ak loo naan sax doo ko am est-ce que mm. jotul tamit ñu changer suñu comportement ci côté boobu wàññi feet yi wàññi li nga xamante ne mooy puukare yi ak mm-hmm. nit ñi tamit di dimbalante seen biir ñi am xaalis tamit di dimbale ñi nga xamante ne amuñu ba nga xamante ne yenn saay contexte yi bu amee rek ñu mën ko gérer. Mm-hmm. soxna Mathi tout à fait dama d'accord ci kaddu gi parce que mm-hmm. déjà euh, pandémie bi euh, jàngat bu mu am andi ci àdduna gi dafa bëri soxna ma ci rawatina Sénégal mhm. euh, pandémie bi leçon laa koy tuddee leçon de leçon vie de voilà leçon de vie la. Mm parce que imagine toi que ni nu ñu meloon. Mhm. ak jamono gii nii léegi ku ku dul woon jenn ku ku daanul woon denc sax dangay ngay denc. Mhm. ku daanul woon denc da ngay denc da ngay réserver am loo moytu am loo bañ. yaa ngi comprendre. Mm-hmm. donc pandémie bi am na lu ñu jàngal. Mm-hmm. dëgg la am na lu bëri lu ñu tënk am na lu bëri lu mu wàññeeku waaye am na lu bëri li nga xamante ne. Mm-hmm. leçon de vie la itam ñu war cee bàyyi xel war cee tiire lu. war cee jàng leçon bu baax. voilà xam nu ñu économiquement daf ñu jàngal économiquement. am na lu négatif de mais Sarata yaa ngi wax lu am solo am na loo xamante ne lu positif la. parce que def nañ ci sénégalais yi jox leen leçon boo xam ne wan ne li nii àdduna lee mooy àdduna surtout ñun jigéen ñi xew yi yi niñ daan yeppee da gis benn jigéen bu liggéey pendant des années des millions benn ngoon jot nga yebbil ko mu jeex léegi ma yokkal la ci léegi mhm. gars yi góor ñi suñu mbokk yi léegi bu ñuy takk léegi kay day heure heure bi la ñuy takk profito takk parce que xam nañ léegi cas parce que xam nañ léegi pandémie bi amul yàq gaspillage bu mais loolu la nag saarata fi mu nekk nii nag loolu tamit nag dañ koo war a jël comme leçon di bàyyi yàq bi bàyyi bàyyi lu nga xamante ne yenn saa da ngay dem benn événement boo xamante nit ki day togg loo xam ne après da ngay jël saako ñu koy tuur te am na ñoo xamante ne amuñu lu ñu lekk est-ce que jotul tamit ñu changé waat yi nga xamante ne mooy jikko yi changé waat comportement yi xam ni tamit feet yeeg puukare yeeg yooyu yëpp dafiy jeex mm-hmm. yàlla moo fi nekk kon ni nga koy waxee rek mm-hmm. te yàlla tamit lim ñu sant mooy ñuy mm-hmm. entre aider suñu bopp di xool moom bëggul ko avare yàlla buggul nay mais buggul yàq mhm. ni mu araamalee nay noonu la araamalee yàq mhm. kon nañ bàyyiwaat ñu digg mhm. doomu rek ñu diggu doomu rek nekk si digg bi li nga xamante ne mooy futilité ñu def ko li li nga li nga xam ne futilité la ñu tegoo ko tegoo ko nee li nga xam ne nag moom moo utile ci dundu àdduna muy lekk naan muy sol yëre muy lu mun ta ñàkk utile lu utile doomi aadama la li nga xamante ni nu mu méttee métti mënul ñàkk ci ci ci ci doomi aadama Mm. donc loolu c'est daggan na nga utiliser ko mais bu mu ëpp lépp loo gis rek yàq ngay mu ëpp rek yàq nga mhm. donc nag l'islam d'accordul ci loolu comme ni nga ko waxee mhm. donc nag l'islam dafa bëgg lépp li nga xamante ni lu yam la buggul lu ëpp buggul lu ndaw na yam na nekk ci digg bi donc nag ñun dañoo war a bàyyi xel ci côté mariage yi ci côté xew yi ci ci baptême yi côté fête sax lu nekk fet yi dañu war a bàyyi xel que ni surtout contexte bi nekk ni ñu jëm 31 décembre ku si amul rek ku amul na ko muñ ndax biir du fen fi mu nekk nii loo lekk sax soo ko lekkee ba pare boo tegee nii sa est que sa biir dana la lii laa lekk kon nañ wàññiwaat bëgg-bëgg yi bëgg-bëgg yi ak tegante bët koo gis sa soo gisee sa morom am mm-hmm. lii nga ne man dinaa ko am xale yi tamit nañ bàyyi lool gis nga yar sa mm-hmm. doom dafa baax mm-hmm. ndax xam nga soo yarul sa doom nii instant yi xale bi mën na gis loo xamante ne mu ngi jar lu cher fekk yow amoo ko mu gis doomu jàmbur am ko mu bëgg ko jël kon xale tamit dès le bas âge nañ leen yaraat xam ne li nga am rek yam ci ba keroog ngay nga wàcc say bët. Mm-hmm. loolu moom lu wér la lu wér la lu mm-hmm. wér la parce que nit ki da ngay tàmmal sa bopp luy wéy. Mm-hmm. parce que li nga xamante ni yow xam nga ni lii munoo koo weesu wala munoo koo am nii nii nii ci jamono gi nga toll nii foog naa nit ki da ngay yam sa place réglé xam na ne lii nga mën a am lii nga am tamit nga yam ci loolu doylu ci loolu noonu ndaxte yàlla bëgg na loolu namm na loolu ci doomi aadama. parce doomi aadama bul xeeb sa bopp li nga am. as tuut bi nga am loolu du tuutiwul mm. en fait tuutiwul bu dee loo defar mu baax loo defar mu baax loo yàq rek mu yàqu donc mm. nag noonu la àddina di mel mm. donc nag ñun dañoo war a revoiraat suñu comportement yi suñu jikko yi dañ ko war a revoiraat dañu war a beesalaat suñu bopp tëggaat suñu bopp. <laughs> c'est ça kon ni ñuy wax rek nañ tëggaat suñu <laughs> bopp. waaw yattaat suñu bopp tëggaat suñu bopp dindi li nga xamante ne mooy jàngoro yeeg yi nga xamante ne dalay yàqal yëpp nga sànni foofu rek ne kon niñ ko waxee nee nañ euh, jamono eh, réew mi soxla nañu sanguwaat ko mm. donc nañ ñun tamit noonu lañ war a sanguwaatee suñu bopp pandémie bi occasion la ñun ñu sanguwaat réew mi occasion la itam ñu sanguwaat suñu jikko yi suñu jikko yi suñu xol yi euh, defaraat suñu bopp. defaraat sa jàng jàngat la de pandémie bii. jàngat la nag gis nga saara te gis nga <laughs> bi am na am na am na foo xamante ne côté négatif la mais gis nga ma wax la côté hmm? positif yi bari na si ndax xam nga li tax côté côté positif yi bari na si hmm. wane na gor yi wane na ñi goree de yi wane na fen na yàlla baal fenkat yi wane na ñi wax dëkk <laughs> wane na ñi ànd te yàlla tax dama lay wax rek mm-hmm. wane nañu ànd yàlla tax wane nañu mm-hmm. àndul mm-hmm. yàlla tax parce que li tax ma wax la loolu tey jii nii danga daan ànd ak nit yow contexte pandémie jàpp la ba amatoo loo lekk nit ki daw la am na fi nit ñi dañ na daan nañ waaw nit daan nañ ànd tamit di liggéey pandémie bi ñëw nga woon ginnaaw nit ki xam nga am na si xale ñoo xamante ne sax boo leen woowee duñ la jël. Mm-hmm. ndax dañuy tege nangam naan leen di ñaan wala dara. soutien ngay ut waaw soutien ngay ut. alors mu mel ni kon waa wala sax ñu ngi lay fen parce que déjà dañ naa la gisuma. te te itam jàngat la mm-hmm. ci côté politicien yi. Mm-hmm. tey gis nañ politicien bi nga xamante ni euh, réew mi soxal na ko. en fait ci ci contexte pandémie bi. xam nañ léegi réew mi politicien bu ne. prés ba jëlee ko ci ba ci président monsieur Macky Sall jëlee ko ci ba ci ba ci kaw ba ci suuf xam nañ ni tey ñoom ban taxawaay lañ amal ci biir réew mi ak lan mooy seen intention ci biir réew mi mm-hmm. ku nekk xam nga ko waaye nag daa nekk li nga xamante ni du lu ñuy wax mais ñëpp ñu ci teg seen i bët jàq nañ bu seen voilà donc nag loolu rek misaal la ci ñun misaal la ci àdduna yi wérngal képp yàlla moo ñuy wan boppam rek ci ci ci ci européen yi yàlla moo ñuy wan boppam rek instant yi gis nga pandémie bi ne ak leneen ak leneen ñoo mm-hmm. yem yàlla si boppam moo ñuy wan mm-hmm. boppam bëgg rek ñu changé waat jëf ni changé waat toogi nii te moom message bu nekk ak nam koy passé xëy na pandémie dafa fee jaare sax pour defar nañ ko nañ ko sante yàlla xëy na pour defar la euh, saaraka ma jox la rek euh, nga tàggatoo après mm-hmm. ñu dem ba beneen yoon incha allah ñu ñëwaat ak mm-hmm. beneen te Mm-hmm. waaw soxna Mati euh, thème bu ñuy waxtaanee nag macha allah thème bu neex la ci fête bi nag tamit ak contexte particulier bi nga xamante ni moom la ñu ko war a fêter. Mm. donc nag euh, damay wax suñu mbokk jigéen yi rek nañ muñ nañ nañ nañ doylu mm. itam ci lu ñuy am. Mm. ci suñu loxoy jëkkër yi donc nag ci lu ñuy am suñuy suñu loxoy parents yi donc nañ nañ xam li nga xamante ni moom mooy euh, maanaam nañ jàng en fait gore. en fait nañ jàng itam li nga xamante ni mooy euh, maanaam euh, compréhension euh, ci ci nit ki nan ngay comporter ak nan ngay nara a mel ci maanaam ci ci dans des situations en fait parce que li jàngat la jàngal la ci li nga xamante ni maanaam situation boo mënta nekk di ci génn mm-hmm. ndaxte boo bu fekkente ni besalaat nga sa xol besalaat nga sa sa sa xel en fait maanaam euh, ci ci côté bu nekk daal di ci mën a génn donc nag nañ xoolaat suñu bopp xoolaat suñu jikko yi xoolaat suñu doxalin yi maanaam ci. fan wu ne donc nag nañ xoolaat nu ñuy doxinee lépp daal ci côté bu ne daal loolu laa mën a am lu may wax sama mbokku jigéen yi ah, ah ci xale yi wala ci mag yi ñëpp daal bàyyiwuma kenn daal nañ xam daal nu ñuy doxinee daal en fait surtout ci contexte bi te nag nañ respecté li nga xamante ni moo nekk maanaam mesure barrières yi donc euh, c'est l'essentiel en fait waaw non kon ni ko sama rakk ji waxee rek foofu laay jaaree yéen tamit sunu mbokku jigéen yi surtout xale jigéen yi nga xam ne dañoo maase ak ñoom jamono mar naan bu mu leen tax a naan potim 31 décembre wala cheveux naturel wala dara loo xamante ne da ngeen koy apporter de quelque chose de matériel bu mu leen jaral dara bu mu leen jaral jaay seen bopp bu leen jaral joxe seen bopp gën leen a takk seen sër xam ne lu dul yàlla neen la te ku nekk li nga war a am ala kulli xaal da koy am may yeewaat rek sunu mbokku jigéen parce que ñoo si gën a exposé wu si côté ay 31 décembre yooyu ay matériel ak fête yi nga xamante ne da ngay solo di simmee di simmee solo simmee bu yëpp dañ ko fii bàyyi kon nañ bàyyiwaat xel yi bu baax a baax si li nga xamante ne moom mooy comportement bi nga xamante ne moom la jigéen war a am ci feet yi loolu rek laa leen eh, indiloon tey jii di joxewaat suñu njaal ci turu Thierno Moule Sow ki nga xamante ne mooy Seyda Mariama Niass ñu ngi koy jaale di masawu umma islamique bi yëpp rawatina ñi nga xamante ne moom mooy waa Kaolack ñu ngi leen di jaale ñun ñëpp si kàddu ki nga xamante ne mooy Thierno Moule Sow di leen jox dig daje ba suba incha allah ñu ñëwaat ak yéen si beneen numéro seen émission petit matin